production présente. tàmm di leen bégal nga jékki-jékki xamatuloo qu'est-ce passe mu mel ni Balla qualité yañ ko xamee woon dafa dafa wàññeeku walla dara lan la Balla qu'est-ce qu'il nga mën ko expliquer nit ñi Balla bu vivace ba Balla bu am doole ba macha allah Balla bu nga xam ne ay secondes mu tër gaay ndax yaramam daf ko yan lu mu àttanul woon ba tey jii mu jékki-jékki yaramam nangoolootu ko wala lan la. waa xam nga sport moom aussi boo ci nekkee mooy kon li nga wax boo tàmmee ndam yàlla moo koy joxe. ñiy bëri di daan ci ay minutes ay secondes pendant des années ba nekk ci roi des arènes ba dégg ci lépp. yàlla suñu borom moo ñu ko doon jox di ñaan yàlla di ñu ko may. ba léegi la ñuy daan def di am ndam ba léegi moom la ñuy def. yàlla moo ko tuddee noonu. sa yaram li nga ci daan yëg booy jàkkaarloo gaañe di leen joxi seconde ndax loolu nga doon yëg sa yaram ci jamono yi nga xam ne da nga doon jàkkaarlook yenn mbër yi. ñu ah, lay bien sûr yaram boobu bëri ba nekk roi des arènes yaram bi moo nekk nii rek c'est la même chose. mais yaram day sooxe day sutante. waaw mais non doomu aadama sax day sutante. waaw loolu mënut a ñàkk ci doomu aadama nga baal ma ma toj yax bi foofu tuuti. waaw ñëwal nga baal xam naa ni yow moom yaa yaa ma gën a am sañ-sañ. ñëwal non non du sañ-sañ de <laughs> déedéet naa ni fi nga jëm ñëwal rek. mooy non non sañ-sañ supporters yi Balla Gaye yi. ñoo la yóbbante. mais Balla na bàyyi feebar di di bëri ndax contre euh, Bombardier toog na 15 jours yu mu deful contact. Mhm. damay bañ a tooñ. am na mbër mu mu defal contact mu blessé moom di ko nëbb deuxièmement anti inflammatoire yi ñu ko dem jëndali contre bombardier ki ko jëndi xam naa turam xam naa naka la tere woon nañ ko mu bëre mu dem bëre ji bi ngay bëreeg bombardier da nga forcé feebar dem bëre ji te du boobu rek sa premier combat ak bombardier bi rek tu étais nga forcé bëre lan moo tax saa yoo feebaree mu leer la ni yow soo demee si médecin mu ne kii inapte na pour bëre nga forcé pour bëre. nekkul 100 pour cent. nekkul sa 100 pour cent nga nga bëre. Ah, waaw kay jërëjëf lamit waa loolu tawfeex la xam nga nag euh, léeg nga def yëfu mbër. yëfu mbër mooy toujours da ngay gëm ne rek même boo doon doxee benn bant sax yaa mën ka ngay bëri euh, dal na ma ci ay combat nag. xëy na suñ borom ñaar yëpp daf la dal ci contre Bombardier. waaw dal na ma ci ay combat yàlla moo ko tuddee noonu ma nëbbu ko sumay encadrement nëbbu ko sumay saf waaye loolu nag maa tooñ sama bopp tooñ samay supporters njuum la njuumte la xëy na incha allah dootuma dal bu neexee yàlla. est-ce que xam nga ne waa Géejawaay pardonné wuñ la loolu ba tey parce que après mbir mi dafa dafa dafa siiw foofu Balla gay dafa feebar kontagul nëbbu ko dem gis nga gis nga am na benn euh, bu fi ma aussi sa nekkoon mun na la génneel benn rotation bu Balla def bi bi mu defee dernière saafaraam daw wër géew bi bi mu dawee blessure bi dafa yeewuwaat mais mu camouflé ko même ci biir bàkk bi boo gisee Baye Ndiaye mi ngi koy calmer pour mu bañ a pour mu bañ a dem loolu yëpp pour pas pas pour taqal euh, euh, victoire u Bombardier Bombardier da ko daan ñaari yoon Bombardier da koo daan ci stade bi daan ko par décision arbitrale kon Bombardier daan na Balla Gaye jël bu amul benn werante mais ñëpp a xam ni keroog Balla ñëwul ba pare tu forcé loolu la loolu loolu la bëgg nga expliquer ko say supporters. xam nga exactement Lamine li ngay wax c'est tellement vrai. xam nga man bu gars yi di tuus ku ci nekk damay dem sa cumukaay. Hmm. damay dem sa ndënd di la xool sa tuus. Hmm. parce que ci tuus bi rek war nga mun a xam. Hmm. mbër bi tey lan la indaale. mais Balla wëndeeloom boobu bu ko defee de bu bu bu ko defee demi rotation. defu ko rotation complet ñetti yoon bi. dama naan acam. foofu noonu boo xoolee. Baye Ndiaye ko ne nii. waaw waaw da da koo da koo boloke. gëj gëj ngaa rotation rotation yu baax yooyu ah. foofu xam nga ba euh, Balla bi mu jëkkee jógee Paris INSEPS. Mm-hmm. waaw boobu moom macha allah wàcc boobu muy wax tuus tuus. Mm-hmm. boobu ku mu dajaloon moo la ma mais ñu reporté combat bi. ok mu dem entraînement ba mu defoon defaatu ko mu relâché wu. Mm-hmm. dem entraîné ci beneen centre. ñu blessé ñëw it ak leneen loo xam ne mu ngi ci. lu ñuy wax la mu njëkk def INSEPS moom boobu moom ñëpp a kontaanoon. la nga rooti woon. ba mu ñëwee nekkul en forme. waaw mais xam nga. sport moo demee noonu. xëy na li la dal munoo toog fu nekk nga wax ko ak di jàmmat et nag aussi tamit euh, nit nit la góorgóor la ma jóge ci suma papa décédé bien nekk ci ay yoo xamante ne nag am na loo xamante ne nag munul nekk te bu dee góorgóor rek laa doomu góor laa xëy na ndam loolu yàlla jig Bombardier mu lu munul am munul am def naa lépp li ma war a def mais lu munul am mënul nit mënul fexe ba moom. mais war war war war ngaa jéggalu bu baax ñi nga xam ne bu Balla Gaye di bëree du ñu lekk du ñu naan ma leen di màccloo suukar ak tàngal. waaw mooy su may supporter. waaw mooy ñi la safoo di la bëggee parce que aussi professionnel bu toll ni yow. blessé di ko nëbb. yàpp say supporter la wax dëgg yàlla wala boog sa bopp ba ëpp wala jom ju ëpp moo la yóbbee yenn yi. non jéggalu samay supporter rek. donc xam nga sport moo doo ko defati tàkkusaan bu ne jox naa leen ko ci ay ndam yàgg naa blessé aussi tamit di bëre di daan loolu bu ñu koy fàtte. tuubi ruubi dootuma ko defati parce que parce que tey eh, sama waxal tuubi ko dolli. <laughs> xam nga boo seetee sama combat Tyson sama combat Tyson dama problème des genoux. Mhm. bëre daan sama combat ak Yékini noonu sama combat ak noonu parce que sport moo demee noonu di nga dem yaan moment boo xamante ne sa sa yaram day day sensible mhm. sa yaram day fatigué. donc léeg-léeg sa yaram bu tàng danga nga bëgg waroon def tey benn 15 minutes nga def benn 45 minutes te loolu du yoon. wala nga war a yëkkati benn 20 euh, kilos nga yëkkati 50 kilos. xëy loolu est moog sport ñu ànd mais daal euh, passé na. te li des sa carrière doo ko defal li des suñu kanam bëri na. mais ci benn question rek laay. production présente.